waa li ñu mën a wax mooy d'abord dañuy jaajëfal ñëpp président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaye ci suñu premier ministre Ousmane Sonko ak ci turu mbooleem membre gouvernement di jiital ci jaajëfal ak ñoo yooyu gouverneur de Dakar nga xam ne li mu waroon a def yëpp def na ko fi mbir mbir mi yomb yem waaye di jaajëfal équipe ba mu xam préfet yi sous préfet maire yi fi teew nga xam ne ñoom ñoo dalal tey te jox leen autant d' espace ba ñu mën ko fa réaliser di maire wax na suñu grand frère Racine Talla ay muy maire bi waaye Ahmed Aïdara et les autres maires ñoom Khadija Maye Koor ñu ngeen gis di wax ne dañuy jaajëfal tamit partenaire de développement yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoom waaye aussi FONSIS bi nga xam ne participé na ci bu baax jusqu'à 30 pour mu mu téye ko tey ci Dakar moo ko

nekkatul léegi des métiers yoo xam ne dañ koy réserver pour kese ndax nee nañu ma ñi ngi former ay conductrices ñi ngi ciy recruter donc pour en tout cas am benn genre balance loolu c'est important def nañu trajet bi gis nañu ni ñu ko aménagé gis nañu aménagement yi nga xam ne tamit fi ñu jaar def nañu ko ça c'est important euh, bi ñu yegsee fii tamit gis ngeen ko lu jëm ci wàllum tarif yi wax na ko sànq euh, yaakaar naa ne

di wax ni euh, projet bu ni mel ñun ñoo ko war a sàmmal suñu bopp ci naka mooy ci saa yu ñuy doxal mbir waxuma sax BRT mais de façon globale ñuy xalaat intérêt ñu mën a xalaat qualité yow mi jaay teg sa table di jaay mango walla gerte war nga xalaat qualité war nga xalaat kell li nu li ngay jaay moo xam qualité de service moo xam qualité produit war nga xalaat kelling bi war nga xalaat sécurité bi war nga xalaat environnement bi gis yooyu bu ñu ko defee dina régler problème yu bëree bëri dina wàññi ardoise médicale waaye dina tax que ñun ñuy mën a am ay mbir yoo xam ne dina yàgg ndax dinañ ko sàmm ndax bis bi bu fekkente ne moomaluñ ko suñu bopp di dugg di fa am yenn comportement yi wala di gaare suñuy oto ci trajet wu BRT wala di traversé nu mu ñu neexee suy wuñu fëyeeg yooyu

car euh, ak bus yi nga xam ne dina mën a permettre ñenn ñi di mën a jugee ci yenn zone yi xaw ruq yi ñëw fekk si trajet bu BRT bi. waaw euh, njëkk yi yaakaar naa ñoom liggéey nañ ci ci xarañteef pour xool loo xam ne dina mën a permettre xëy na transport public duñ ci wut xaalis mais dañuy fexe ba entretien bi ñu mën koo assurer ak personnel moo tax ñu def liñ ci mën ci tarif boobu am na lu ci. exploitant bi moom am na lu ci euh, état du Sénégal moom loolu dafa am solo mais beneen bi aussi mooy transfert de compétence bu am na maanaam xarala gi ak xarañteef bi ñu ngi koy jàngal suñu ay ndaw suñu ay naataango sénégalais ba nga xam ne fii ak ay at yu néew ñun dinañ mën a defal suñu bopp lépp loolu moo ci am solo euh, beneen ba ca des mooy encore une sénégalais yi nañu xalaat kaaraange dafa sol yaa maa ngi koy wax saa su nekk di ko répété ñii dañu jël temps def plus de des tests ay chauffeurs yi def plus de deux millions sept heures de test def formation bu ngeen gisee bis yi doon daw ñu naan waa bis yi ñoom ñu ngi daw rek yàq courant nangam nangam loolu projet moo ko laaj technique la te biñ defee test yaakaar naa benn accident bu ndaw moo ci am bu yàggul dara loolu record mondial donc dafa am solo ñu def ko pour mën a aar Sénégalais yi mais ñooñu dañ leen a formé bus yooyu ñu koy dawal dañ leen formé ñii def entretien yi dañ leen formé yëpp yi moderne foofu la ñu war a jëm ñun ci suñu transport te incha allahu rabi dinañu ko doxal ndax ci suñu ministère bi ñu dénk ñu liggéey ci taxawal fa benn direction boo xam ne ci wàllum fii HSE rek lay doon maanaam qualité kaaraange yooyu te dinañu saytu tout le secteur te par rapport bi nga xam ne si ñun la dépendre. ñoo yor tutelle bi di fa def ñu xool ndax ñu ngi respecté yooyu waaye ndax ñu ngi amélioré ci cadre boobu may demoon boobu balaa fan yu néew ci état général des transports di ngeen gis ne di nañ ci ay solution yu bëree bëri bëri mais comme ni ma ko waxee rek faaw ñu xam ne Sénégal Dakar yii projet yu baax la dina wàññi jafe-jafe yi waaye du régler problème lii régler problème mooy ñu fexe ba Dakar nekk matul sax 1 pour cent wu superficie Dakar capitalisé plus de 4 millions de Sénégalais dañu war a fexe ba nit ñi jàpp ne seen i gox lañ ko war a soxla yëpp am nañ ko mën nañ faa bay mën nañ faa sàmm mën nañ faa may usine mën nañ faa liggéey am na commodité yi nga xam ne yëpp am na Dakar am na ko nit ñi mën a ñibbi Dakar féex ñu mën ko def mu nekk Dakar une ville foofu la ñu foofu la ñu war a réfléchir dans le moyen et long terme et am nañu yaakaar ne incha ak projet bi nga xam ne indi nañu ko ak les territoires du développement balaa yàgg dara di ngeen gis loolu ndax su ma jëlee ci wàllum transport ñi ngi liggéey bu baax a baax ci implanter pratiquement une dizaine de centres contrôle technique moderne comme bi nekk Dakar dans les autres régions mais bu ci nekk dinañu fexe ba ci wet ga ci même bâtiment bi mu am centre de contrôle d' examen comme boo demee naa les pays développés États-Unis li ñuy wax DMV bi nga xam ne soo demee foofu fa ngay passé sa examen euh, te balaa ngay jot permis bi li nga wax lu set maanaam li nga jaar fi nga war a jaar yëpp bañ xam ne kii am na habilitation ci centre yooyu di ko mën a def sa visite médicale ak yëpp xool ne kii kat wér-gu-yaramam may na ko mën a dawal et donc am ay chauffeur professionnel am permis à point am surveillance globale parce que tey suñuy équipe ñu mel ni c'est ñu ngi liggéey ak ay compagnie yu mag ci wàllu xarala pour di surveiller tous les trafics moo xam biir Dakar intégralement mais dans les régions nga xam ne oto bu nekk fu mu jaar dinañ ko mën a localiser dinañu mën a xam ndax oto bii nii na bisu technique nga seetaan parce que Sénégal comme ni ñu koy waxee su ma juumul 72 pour cent wu oto yi ñu ngi ko immatriculé Dakar maanaam bu ñu Sénégal 1 million oto fi am 720 mille yi Dakar lañ ko immatriculé waaye yaakaar naa ne centre contrôle technique bu Dakar 62 pour cent rek la xam ci 700 yooyu 38 pour sant yi kenn ko fi nekk. mooy oto yi ngeen di gis ñi daw ñu naan kii def ko am visiting dinañ ci liggéey bu baax ministère de l'intérieur ministère des forces armées gouverneur entre autres pour que contrôle bi gën a tar ñu fexe ba yooyu nga xam ne waratul taw ñu génn leen ci circuit parce que déyee yi ñuy bi dafa bëri installé fi usine de wax nag lu ñu liggéey la lu ñu expérimenté la te lu mën a nekk la te dina nekk incha allah dinañ ci waxtaan ak acteurs yëpp parce que démarche participative lañ ci def ngir en tout cas mën a fexe ba Sénégal nit ñi di mën a dem ak dikk ci jàmm ak salaam jërëjëf